Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. voilà donc di nuyu euh, supporter wu ASC Belfort yëpp di nuyu képp ku yeewoo Belfort donc euh, ci mbaaxu yàlla sunu borom ak Katanam, ak mën-mënam may nañu ren ñuy wat encore finale zonale contre ASC Kajoor comme daw niñ ko téwé won donc diko euh, diko di bu baax waaw ci ci loolu quoi. waaw mboo xam nga jàmm bi moom day lu rek jàmm moom day lu rek ndax euh, yàlla suñu borom mooy maye donc tey ñun suñu suñu yéene suñu suñu mbébét moom mooy dem jël final bi contre ASC Kadior donc comme tubaab bi nu mu koy waxee rek donc euh, un match de football n'est jamais gagné d'avance donc ASC Kadior équipe bu ñu respecté la donc bu yegsee fii donc c'est parce que il a des qualités donc mu doon ay joueurs yu compétitifs yi nga xamné xamna len donc mu doon équipe bi nga xamné mine min na finale aussi donc né dañuy dem jëli finale bi contre ASC Kajoor yaakaar naa ni euh, c'est trop dire donc équipe bu ñu respecté la li ñu gëm moy finale bu joté dinañ ko jox axam lepp lu ñu wara def ci finale bi pour dem gagner ko rek inshallah dinañ koy def pour gagner ko di ñaan yalla suñu borom mais ñu ndam comme ni ñu ko mayé won daw waaw non luy ñew suba mom yalla rek moko xam waaw li ñëw suba moom yalla rek moko ko xam mais comme limay wax rek ñun ay jaam lañu dañuy dañuy sabablu suñu yéene suñu bëgg-bëgg moy ñu dello boom ca boy boy ga moy lan goudi goudi Belfort lool moy suñu suñu suñu mbébét moy lan numu goudi goudi kubi coupe bi lay fanané donc yaakaar ni gis nga ñu ci entraînement yi effectif bi mi ngi fofu envie bi mi ngi fofu détermination bi mi ngi fofu gëm-gëm bi aussi mi ngi fofu lu dess rek moy jour ji ni samedi soreetul euh, ñu xol nu wanen di ki bëtt final bi daal ñu ngi koy waajal quoi comme ni ñu yeggee waajal suñu match yëpp di préparer comme ñu yeggee préparer suñu final yëpp match la tamit bi nga xamante ko trop comme nañu ñetti yoon soo xoolee ñu am ñaari victoire si ñoom benn bi gars yi séddale ñu waaw final bi tamit ñu ngi koy préparer comme nu mu ko waree quoi loolu la am quoi confiance bu ñu yàgg rek comme daaw bu ñu yoroon rek moom la ñu yoraat ren incha allah defaat lu ñu defoon daaw ko wax rek ñun dañuy xaar jour ñoom nañu moomee wax bi balaa match bi rek ñun incha allah jour dañu confirmer lu ñu mën rek waaw ñun moom mënuñu bi rek ñu ñu ñëw ñu wàññi ñu xam xamuñu ñu indi suñu sabar euh, ñu def lu ñuy def ñun nañ ñun moom incha allahu rabbi yàlla yàlla nañu yàlla may ndam quoi ñun loolu lañ bëgg dañuy sant yàlla di ñaan yàlla rek ñu dugg si jàmm génn si jàmm euh, Belfort dëgg la équipe bu mag la ko waaw tey jii lépp lu mu wax rek ci lu jëm ci Kajoor rek ñun dinañ ko nangu ba ci bis bi bis bi bu jotee daal lañ koy xamal ni a ah, xëy na luy xew suba kenn xamu ko bu dul bis bi bu jotul kon tey jii xëy na dañuy ne bis boobu lañuy ñuy xaar xëy na boo gisee ñoom ñu dem ba di wax ni yoon bi nii daal dañ ko yàgg di xam kon ñun dañ leen di xamal dëgg la yoon bi yàgg ngeen ko di xam mais ñun tamit nekkoon nañ si ginnaaw ba tey jii nii raw nañ fu nga xamante ne foofu ngeen dëkk te yàlla def na ne lu nga xamante ne ñun depuis le début ku ñu gis di nga xam ne ñi dëggantaan am na lu nekk seen objectif kon tey bu ñu demee ba toll fi ba mu des ay ñaari fan kon tey jii daal moom jàpp naa ne ba léegi lu ñu jàppoon depuis le début loolu moo si ne te bu neexee yàlla tamit moom ah man moom suma xel daal na takkusaan bu ne joué naa ko kon foogoon naa ne ku joué takkusaan bu ne kon tey lu mel ni lii man jàpp naa ko ni xëy na dëgg la dina bëree ay nit lu ne dina fa xew mais jàpp naa ni daal kom mas de poule laa ko jàpp te dina dinañ xam ni kajoor bu dëmb ak kajoor bu ren ça fait deux quoi ça doo dem terrain bu la nee waa kajoor dëpp man euh, ay année passée nii yu ma doon gis si supporter kajoor yi wax dëgg fa ren loolu amul. ren dañuy wone lu nga xamante ne man des fois su ñu may bokkal bërëg liggéey saa dañuy yàkkamti sax bëgg a xam kajoor la kañ lay parce que lan la ambiance bu ñu fay gis la fair play bu ñu fay gis la kon loolu noonu. ku dem nga xamante ne gis nga ko depuis démb lu war a ñëw suba dama jàpp loolu sa xel war na ci mën a dal ba tey jii ni boo xoolee xale ak koñ bi nu mu mel war nga mën a xam ne ñii ni la ñuy indi bis bi terrain kon ndax bis boobu daal bu dul jàmm mënuñu indi leneen te jàmm rek la ñuy indi te Belfort nañu xam na peut-être tey ñu muy toog ñiy xalaat ni Kajoor lu ne dinañ ko indi lépp lu nga xamante ne muy Boucan mais ñun suñu Boucan xam nga ba mu la dimanche la bu ñuy jël suñu ñu Euh, contexte yi dañoo différent mooy bi final la mooy monnaie final la gañ jël la ku gagné rek nekk champion titre bon ñu ngi koy waaj avec beaucoup de sérénité ak suñuy jour ak suñuy staff waaw bu baax a baax toute la population ñu ngi koy waaj bu baax a baax ñu waajal final bu baax a baax waaw. juste di leen gën a ñaax rek ñu gën a góorgóorlu xam na ni masse de guerrier la combativité moo koy gagné avec beaucoup de de lucidité surtout moo tax ñi mun a moo ñu mun a yóbbu fu ñu bëgg a yegg. waaw moo tax man daan ñaax noonu di leen yuuxu noonu mais yuuxu yëpp pour si positivité la quoi juste pour ñu mën a yegg fu ñu war a mën a yegg la moo tax man di yuuxu noon di leen ñaax pour ñu mën a gën a góorgóorlu ñu gën a mun a appliqué wu waaw parce que comme ni ma leen ko waxee sànq rek match gan jël la quoi. franchement parler euh, c'est une équipe à respecter bu dee yàlla dëgg rek la bëgg koi tey boo xoolee parcours bu ñu débuté nawetaan euh, di phase. 2022 euh, bi ba atum ren 2023 bi. xam ne ñu ngi si dynamique quoi té bo xolé match yi ñu jotté jouer yépp ñom ñoo nékkon suñu kaw kon ñun tamit amna ci match ci match yi ñu joggé ni amna ci jangat bu baaxa baax amna ci experience ñu ngi koy waaj bu baaxa baaxa baax ak suñu supporters yi diko waaj baax ak suñu staff ak suñu encadrement ak suñu joueurs avec beaucoup de confiance ñu waaj yalla may ñu ndam bu seddu guy seen kaw bu soobee yalla non violence mom wax deug fa yalla kadior ku ko xam ci ambiance lañ dëkk ci ambiance lañ dëkk manam loolu lañu ñu quoi fair play ka fooree xam nga ñu neexal ko xam nga yàlla may ñu ndam quoi si kaw Belfort loolu lañ ñaan quoi ñu yëpp ñu si jàmm xam nga. Euh, supporters yi Belfort yi bañ a gaañu supporters Kajoor yi bañ a gaañu non violence xam nga ñu foo ñu foo kaf ree ambiance yàlla may Kajoor ndam quoi loolu la ñuy ñaan waaw.